pour la plupart sont localisés donc il faut mu il faut il faut il faut bu ñu bu ñu jàpp sénégalais comme ay kii quoi ah. d'accord mais réew mi doxul. Euh, juróom-ñaari weer c'est vrai kenn mënu ci tabax dara mais euh, sénégalais yi quand même majorité ñu ngi doon xaar yëf yi gën a neexee ni réew mi metti na loolu ñëpp a koy jooy. boole ci nag am ay coow yu sew coowal Azer par exemple coowal ONAS ak yeneen ak yeneen euh, problème mu démocratie bi ñu fi jooytu récemment ak euh, convocation yi ak arrestation yi heureusement euh, commissaire Keita ak Suzanne Camara génnee nañu leen ñibbi nañu ci seen ay njaboot bugaan mi ñu teewoon itam mujje nañu ko bàyyi mais loolu yëpp ni ma la ko waxee sànq jur na ay frustration loolu moom c'est avéré même bu fekkente ni du ñëpp ñoo ci am même gis-gis waaye am na ci ñoo xam ne xaw na jur yàq yaakaar bu tas ci ñoom loolu itam yaakaaroo mu mën leen a yàqal euh, ci élection yi ba xëy na majorité confortable bi Pastef di wut mu mu am euh, xëy na fu mu soxee tuuti. li may dëkk ci biir réew mi la may gis ak nit ñi lu ñuy waxtaanee. Hmm. ñi ma fekkee conforté na ma ni ba léegi nit ñi ñu ngi ci ak vraiment. Euh, électorat bi ngay Pastef. électorat bi. bi nga xamante ne bëgg nañu may euh, majorité bi à l'Assemblée nationale. Mmh. président Bassirou Diomaye Faye ñu ngi ci ci li ma dégg. ci li ma gis. ak mm. li may li nga xamante ne moom lay fekkee. ci waxtaan yi. Mm-hmm. beneen bi c'est normal que sénégalais yi yàkkamti. Mm-hmm. c'est normal que sénégalais yàkkamti parce que dañoo dañoo dañoo sol fukki at ak ñaar xooxotal gi rey gi càcc gi caay-caay gi ak ñàkk leen ormal ñàkk leen faale lépp li nga xamante ni ñëngi ci ci seeni koom faalewuñu leen ci béykat gerte demoon na ba tumuraanke ci biir réew mi njëg yi la nga doon béy ci biir réew mi lii di dugub lii di mboq lii di ñebbe xool ñebbe kilo bi di dem ba deux mille francs foño bi deux mille francs dugub bi toll na waxtu bi nga xamante ne sept cent cinquante francs la doon toll ci kilo et cetera et mais kuy dund ci kaw Eh, dugub ñebe ak yeneen fu mu fu mu jëm borom njaboot yu sew yi mm-hmm. fu ñu jëm gën jën mu jën musuñu ma ma ma gisatuñu ko lépp cher kilo yàpp sax moom mënoo ko xalaat donc bi ñu demee ba tollu foofu nit ñi pendant douze ans loolu lañu ñu léegi nag boo amee nguur gu bees da ngay yàkkamti mu inversé li ma njëkk a def mooy que vraiment donc wàññi nañu ay njëg donte ci ñeneen yenul maana mais nii nga xamante ne wàññi lañ leen te surtout ñu nga xamante ne am nañu njaboot yu gën a yaatu ñoom xam nañ ni vraiment lu mu leen jë lu leen jëriñee mm. donc loolu ci acte ci njëkk la bokk wàññi dund gu seer gi parce que suñu ko wàññi woon de façon drastique yenn anam koom bi moo doon am problème bu koom bi amee problème dootoo mën a subventionner li nga xamante ne wàññi nga ko après da ngay def wax yoo xeet te loolu dafa wow dafa rafetul ci njit loolu ñaareel bi li nga xamante ni mooy aspect démocratique man je regrette muy am ay interdiction de marche je le regrette parce que teguñu ko ci ci yoon lu sart réew mi wax ndeyu sart réew mi wax muy constitution demande ngay def léegi nag bu fekkente ni am na ay choc d'intérêt intérêt publique ak intérêt yi nga xamante ne ñooy particulier yi bëgg a wu dañ leen war a wax teel ni itinéraire bi baaxul ndaxte lii ak lii ak lii moo fi war a xew walla ci sunu renseignement lii la ñu jox kon changer leen itinéraire mais seeni euh, nu mu tuddati seeni marche bi c'est toujours valide loolu mooy yoon nit bu bu bu bul jóg rek quoi nga yooyu nga ne bon vraiment donc maa toog maa nekk ci jal ji rek quoi lu ma neex ma def déedéet man d'accord mag loolu d'accord mag loolu nanu respecter loi bi loi fondamentale bi lu mu wax nañ ko respecter ñu avancer maintenant nag arrestation yi am na ay provocation yi nga xamante ni dafa amul benn njëriñ amul benn njëriñ hmm. ku bëgg tur ku bëgg siw nga ne xaaral ma def benn benn genre coup d'éclat pour nit ñi médias yi wax ci man et cetera et cetera surtout que bon voilà y a un coup de froid entre médias yi ak gouvernement bi donc euh, daañu ma vraiment donc siwal ak yooyu. Mm. mais loolu. pour yow gars yi bës dañ ciy mais xam nga bës boobu ñuy wut wolof dafa ne siw du jàmmi boromam <laughs> donc Bougane dix jours yi nga xamante ne def na ko fële avec combien plus de combien plus d'une quarantaine de détenus dans une même chambre xam nga loolu nga nekk sa biir kër. moo ko gën a bari bu ñu la nee président de la république moo nekk fii xanaa yow boo nekkee président de la république bëgg nga sax ñu may la orma boobu yow sa jëmm bopp yi def di xataraay naan waaw parce que Sonko l'a fait ici est-ce que Sonko moo fa nekkoon non président Diomaye Faye moo fa nekkoon président de la république bu alkaati ne président moo fa nekk te pourtant président joxewul ordre boobu mu wax la ni vraiment alors euh, président moo fa nekk may ko vraiment donc ñu nga changer itinéraire wala nga may ko ba mu génn foofu nga soog a dem et puis moom bu Bougane war naa mën a am intelligence boobu man ci li ma gisoon ci moom mooy que c'est un intelligent il est jeune dynamique et cetera donc il en encore pour son pays. Hmm. mais actes yooyu nga xamante ne def na ko dafay déprécier vraiment donc son comportement donc dans l'esprit de certains. te loolu war na cee bay xel du affaire jàmbarte ak yooyu tout ça là di buuxante ci ay mbir pour ñu wax Bougane guerrier la non saa il faut qu'il oublie ça responsable la dafa am ni nga xamante ni ñu ko jël comme roykaay kon war naa mën a seetaat boppam ci jëf yi nga xamante moom lay jëfee mel ni xale bu ndaw loolu war na ko dàkk ci ay comportement mu xam ni ëllëg bu ne bu bëggee nekk président de la république te yàlla su ko ko mayee. eh naturellement bëgg na ko ko ormal boo ñàkkalee ormal njiitu réew bi nga xamante ne defula dara te deful dara réew mi pour le moment eh bien naturellement may ko orma boobu. doomu aadama yi ñoo ko may orma boobu yàlla yëkkati ko ba ci station boobu kon na def ndànk. na bay xel ni dafa am ñu ko jël comme roykaay dafa am ji nga xamante ne nekkul ñu ak moom mais ñu ko apprécier mm-hmm. man ca laa bokk ñu ko apprécier laa bokk parce que am naa ay rencontre ak moom discuter naa ak moom ci mm-hmm. yenn yi et cetera on a été au M24 et cetera tout ça nit ñi photo yaa ngi fii ci ci ci sur sur sur la plateforme. Mm-hmm. Euh, donc sur le internet. dinañ ma gis ak bugaan foofu ñuy foo di vraiment donc di ànd di di tàppante yooyu yëpp nit ñi dinañ ko gis mais li ma ko mën a conseil ci plateau bi mooy loolu na dellusiwaat hmm. à des proportion gardées parce que dafa am ñu ko naw dafa am ñi nga xamante ne dañ koo dañ koo jël roykaay dafa am ñi nga xamante ne vraiment ñu ngi koy bàyyi xel. Hmm. donc na def kéemtal laay kattanam lu mu def nii bu mu ko dalati. d'accord